ci affaire les détenus politiques les détenus d'opinion mais dafa nekk li nga xamante ni man euh, damay génn ci une bi dem ci rapport Human Rights Watch parce que rapport bi aussi euh, dafa accla accablé trop trop Sénégal ci recul démocratique bi ak euh, droit de l'homme ni ñu koy salfaañee ci réew mi gis nañ nag ñu bokk ci nguur gi ñu ngi génn di tontu mais imaginer Human Rights Watch liggéey bi mu yàgg def ci àdduna bi yëpp hmm. bu demee ba ni Sénégal opposants yi dañ leen di singali presse bi dañ leen di singali loolu dafa nekk pour man ay réalité ku mu neex ak ku mu naqari même bu ma féete woon ci nguur gi je préfère nangu rapport bi xool nan lañ ci doyanti parce que c'est une réalité Human Rights Watch mënoo ni daf fi nekk pour ma Samba wala ma Demba puisque bu waxee lu la arrangé nga applaudir hmm? bu waxee loo xam te ni dëppoowul ak yow nga génn tu réponds par une phrase tellement par tellement légère hmm? te lii rapport rapport pour man boo koy tontu da koy tontu par des arguments ay arguments clés ngay indi teg pour démonter le rapport li ñu wax ci droit de l'homme dëgg la li ñu wax ci recul démocratique euh, de euh, recul des des libertés individuelles droit marche yi ni ñu koy tere yooyu yëpp dafa nekk presse bi li ñu ci wax dëgg la. 12 ans yi ñaata yoon lañ fi coupé signalu télé. Hmm? ay un mois ay une semaine loo xamante ni Ablaye Wade nekk na fi 12 ans ba jóge fi mosuñu ko fee gis. Hmm? donc euh, ñaata journaliste interpellé nañ leen woo nañ leen. Mhm. téye leen en garde à vue ñenn ñi jot nañ dugg kaso pour lan pour si ay opinion donc euh, yooyu yëpp dafa nekk li nga xamante ni ci deru Sénégal muy tey muy ku fi nekk ëllëg dafa dafa dafa rafetul ñuy tudd Sénégal ci yenn rapport yi di ko tudd ci yenn recul. Euh, mhm. démocratique yi parce que lépp lu ñu am ci démocratie ay acquis la te acquis yi ay nit ñoo ko xeex ba ñu yegg si fii donc war ñu ko sàggane muy dellu ginnaaw donc foofu laay waxee bu dee nag.